per tafaanaar mhm. ñëw naa ci yow per lamb dafa am benn coow bu ci am fi ñu toll nii mhm. mooy nit ñëpp dañ naan dafa am ay nit yuy jóge di tuxu te yow fekkee nga làmb démb fekkee nga làmb tey làmb démb boo xoolee dafa mel ni moo ëpp ngor làmb tey parce que làmb démb dafa am fu mu yemoon mais fi ñu toll nii comme li Alaaji Mbay wax sànq dafa mel ni diggante Ama Balde ak Balla Gaye 2 dafa am lu mu commencé déranger ci làmb. waaw làmb démb ak làmb ngor nga amoon demb ci làmb. Mhm. jógul fam fam ne ngor du kon lan mooy tuxu. Mor Ngeer. bokkut ak moom bokkut ak Mbaye Gueye te moo ne dañoo dem ba suudewu Birame Ndiaye fu mu daan di ànd ak Mbaye mhm. Boy Lamb. Mhm. fu mu daan jóge jóge na ànd ak Mbaye Gueye mhm. nit ñi il faut ñu comprendre ne yàlla dafay boole nit ak nit Balla Gaye ak Ama Baldé loolu du lu ñu créé comme ni ko Alaaji Mbaye waxee loolu yàlla moo leen boole làmb ji nga xam ne suba mu jeex mhm. bu leen tàqalee boo légee bu ñu jee bu ñu jeexalee seen gise day yéeme mhm. tey Mbaye ku ko noonu di nga añ kër manga ko gëm loolu la defante dinañ ko ci làmb ku ci sëgg sa kër morom tey bu sa xel demee ci démb nga am kersa loolu la ñuy dawal gone yi rek mhm. jàmm rek lañ bëgg ñoom ñu am te ay mbokk lañ nag mbokk bu naqaree dindi ndax mbokk la boo xam ne bàyyam man damaa toog man Tapha Nar mi ngi ci këru dëgg maa ngi ci këru fen te dinaa ko fekk mhm. mu ne ma lii may wax yow laa koy yow laa koy waxal Tapha Nar mu ne ma lii may wax mu ne ma yow laa koy waxal mu ne ma alalu àdduna bu mu boole mukk sama waa kër ñii ak waa kër Double Less nii la ma ko limalee ne ma maalaw seeraas sama doom Fallaye Balde sama turandoo Amadou Balde Souleymane Balde Demba Balde Paate Balde nii la ma ko limalee ne ma ñii sumay waakër kër lañ ñëpp sumay doom lañu. Mhm. bu leen alal jay mukk mukk mukk ma fekke ma wute ba boole leen waa kër Double Less barke Cheikhul Khadim bi ma gëm. Mhm. Fallaye Balde ma ko. Mhm. te rus naa koo fekk ci bàmmeel. di am kersa. waaw dañuy génn ci foofu. mbok moo fa dugg. mais dañoo gis combat Balla Gaye bi passé. dañ ci gis ay yeneeni camp yoo xam ne mu jur coow fépp jur na coow pikin jur na coow parcel jur na coow fépp ndax lamb jar na loolu. muy lan lan lan ngeen ci gis ci camp yi lan. mooy dañ ne modlo mhm. dañ ko doon sot mhm. gis nañ ci Baboy mhm. gis nañ ci Tafa ñu ne sax am na ñoo xam sarax bu modlo war dañ koy wax parce que ba ci lamb ji. Mm-hmm. ñu nduroo ay tegtal. waaw xam nga man nag maîtriser wu ma combat Balla Gaye mm-hmm. ak ak ak ak Modou mm-hmm. ci domaine nu làmb. waaw ci domaine nu làmb loolu. waaw ah waaye yéen xanaa da ngeen di bëgg fàtte amul mbër ma fi daan ne Tafa Gueye ma jox bi. ci làmb waaw dëkk mel ni Boy Niang moo waxoon loolu de kon kon làmb na wala parce papam la. am na droit gis doomam ne ci yoon mu woo ko téléphone na ko defal li defal lii mais loolu loolu loolu teewul ni bu Boy Niang war a bëre waa Fass day bëre ñoom loolu loolu ay détail la Aziz sponsor la ci làmb ji mhm. mais wëllëreem ak Moustapha Gueye mhm. ku ne jiitu na combat Balla Gaye ak Moustapha Gueye mhm. ba ci gàmmu te aan këram la la ñëw féeteeg Aziz mais lan moo tax yéen. Mhm. waxu leen kóllëreem googu mu am ak ak moom mhm. léegi Moustapha Gueye bisu Aziz war tañëw jàppale Aziz mu feeñ ci ak mu bañ ci feeñ làmb la dafa bari dafa bari pax. daa am ñoo xam ne dañuy yor seen téléphone di woote di sot am ñoo xam ne dañuy ñeme fes di di sot loolu la rek mais làmb ku ne sot na nga feeñ ak nga nëbbu mais ñëpp a sot ku nekk ak ni nga sotee rek mais ñëpp a sot xëy na Moustapha dañ dañ wëllëreem ak Aziz Ndiaye fee féete na ko foo xam ne foog Aziz Ndiaye woo mu ko ndax moom foog ko mais barki démb. Mhm. Gris Bordeaux bëriwut ak Balla Gaye. waaw fu Moustapha Gaye ànd. si Gris Bordeaux. ba làmb am na ñu gis Moustapha Gaye ànd ak Aziz Ndiaye. waaw ah mais c'est la vie. Mhm. dañoo war a mbër dafa war a séparer comme ni ko ministre bi waxee dafay dafay defar mais war te yàq. léegi daal làmb waroo am xarit waroo am wëllëre waroo am kenn da ngaa war a far fi nga far rek yaa ngi moom rek bu la mënalul dara nag. léegi na père fi nga laal noonu. waaw pourquoi waa Pikine ño am boobu problème. waaw loolu xëy na ñoom la. mais yow ci magu Pikine nga bokk. waaw waaw waaw mais du tey du ñëpp Pikine it ñoo mel noonu parce que da nga koy xool ci mbër yi ku ci ne boo dajeeg sa morom gaare sa oto. Mm-hmm. songoo bari ci mbedd mi. est que dañuy naxe. wa loolu xam nga nak li ci biir xol. Hmm. man aguma ci ndax duma médecin. Ah. li ci biir xol man li ci kaw rek la meuna gis parce que loolu lañu woné wane. li ci biir nak man xawmo hmm. mais ku ci sa morom di nga ak mom kon loolu adu la rek ku ci ne nak bu liggéey jotee sa kër nga yobbu gisoo fi benn mbeur bu tabaxal morom mbeuram kon nañu an ni rek. ah mais ban mbeur né mo mbeur mi mo tabaxal morom mbeuram ah man kay xawmo ah ah bëre nga. waaw mais xaw ma ban mbërë ko fi tabaxal kon ku ne boo julee sa bopp ngay ñaanal ku ne nag sa këral la tax ku ne sa bopp ngay wutal mm-hmm. mais du tere ñu rafetal rek nag mm-hmm. nañ koy rafetal rek ñoom ñëpp àdduna la rek àdduna rafetal daf ci am solo tegal sa sa loxo si rafetal